mujjee xaw ma nu mu tudd sax yow. xalifa euh, euh, rappeur. nu mu koy nu mu koy dàqante la ñebe amul toos tasal. toos ñebe. <laughs> mu ngi noonu ah. Euh, waaw muy buut buut yi waaw. alors rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billahi al azim salaamun qawlan min rabbi rahimin qul ma uqadu naaran lil ardi atfaha alors asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di la nuyu Omar. di nuyu saa waaw di nuyu sama fans bi. noonu la demee sama fans la quoi Suga noonu la demee di nuyu faatu di nuyu waa kër gi yëpp caméraman yi ak technicien yi. waaw di nuyu askanu Sénégal yëpp. di nuyu ñu si kaso bi. ngeen di siyaar leen ñaanal yàlla mu teggi leen nattu bi ngeen gaaw ñibbi seeni kër. noonu la demee alors bisimilah. <laughs> mi ngi noonu xalifa waaw ah, comme sukaanee dama ngéwle ngéwle gi nag may naa ko DJ Omzo animateur ci Zik FM sama xarit la maa ngi koy ziar bu baax DJ <laughs> Omar Seck <laughs> may naa ko sañse bi ngéwle mi ngi noonu mais xalifa xalifa yaa ngi wax di ngand ngandu lu xalifa di ñaan di jéem a xutba nit ñi di leen léemu ah te ñun danoo dërkis xalifa ah, loo jublu ci léemu yi nii non du léemu sax ñaan la lekk pour yàlla maanaam sàmm ñu aar ñu joxe maanaam yombalal ñu message bi ñuy jàllale xam nga. ci mhm. jàmm ak salaam ba pare tamit mu wala gaan si nopp askan wi ñëpp jëriñu si waaw te mu barkeel daal loolu kase la ko waaye yàlla musal ñu si cat xam mhm. maanaam ak tamit. parce que xam nga wax dafa doy waar xam nga yàlla sàmm ñu ar ñu daal xam nga ñu bañ wax tojaange xam nga jàmm ak salaam daal yaa salaam loolu kase la. ku bëgg a jàmm nag xam nga looy. jàmm du njabar du dara ay ñaan la lenn rek moo koy may. Mhm. mooy maytu tooñ. te xalifa tooñ non tooñ kenn te wolof neen ku bëgg a jooy da ngay tooñ ku la mën. Mm. mais la la Wally Seck def. man du ma tooñkat. parce que après li xew stade Wally nekk victime ñu tooñ Wally moo waroon a way wayul ñëpp di doon ko xaar yow nga génn naan Wally da doon ut buzz victimisation la doon def lu ne nga yàq ko ko c'est-à-dire que yow maanaam yow bëggoo jàmm quoi yaa ngi ñaan jàmm mais bëggoo parce que ngay tooñ. ok man artiste rappeur la porteur de voix yaa ngi dégg. Hmm. waaw man damay wax dëgg te yàlla rek a tax. mais wax askan wi dëgg man du ma nax askan bi je ne triche pas. mais da ngay tooñ je suis pas hypocrite. da man stade bi keroog maa ngi fa woon. moo tax ma génn wax sénégalais yi xamal leen dëgg bi yaa ngi dëgg. lan mooy ñaata artistes ñoo fa nekkoon joué wuñu. bari na. Dip Ngaaxa Fally Ipupa ah ay Alpha ay Star International ba si kooku noonu xaw ma nan master xaw mooy ki way oh, daal loo see saan boobu noonu. Mhm. ki ko si stade bi joué wul mais lan moo tax booy Wally Seck yab sénégalais yi. bëgg jël maanaam tur wala buzz di ko créer si ay victimisation chaque fois muy tekk ni moom daal moom saa yu ko déggee coom du musique du mën a way xamala la sol na drapeau bu bon sol na yëre jigéen ah sol na saagu jigéen ñëw na gaan teg ay tuuma si kii wala dégg nañ ko si ay jaayum oto et si ay dégg si ay maanaam moom daal buzzam daal si lu bon kase buzz négatif Youssou Ndour bi ñu jël di ko tuumaal di ko sosal Youssou Ndour tey si tey baayam la te moroom mu baayam la est-ce dégg ba pare nekk légende nekk tamit gaamal la sumu patrimoine culturel national sénégalais yóbbu drapeau Sénégal bi fépp si àdduna xamaa boo ñëwee ba président États-Unis ñëw Sénégal fii xàmmeewul sax ministre yi di xàmmee Youssou Ndour wala am ay Grammy Awards ay disque d'or créé fi ay emploi yi dul jeex nekk fi ministre wala mais lan la waali def kenn waxul nga nekk di tagg di tagg Youssou Ndour xam nga yàlla wax boobu yàlla àtte na parce que lépp lu ñu doon wax dëgg la te yàlla tax parce que ñu doon si stade bi yaa ngi dégg maa ngi bi maa ngi foon mais turki yi seen bopp génnee nañ communiqué lépp lu ñun lépp ma li ma doon wax sénégalais gars yi di ma saaga di ma dëkkal fu ma dëkkul turki yi seedee nañ nee naa la stade bi ni nga ko tabaxee stade bu mucc ayib la lépp ay programmation la ba si camp yi bu duggee ñu naan goal line technologie. Mhm. mu vibre si montre arbitre bi directement bindu goal xam nga action day am sax yow caméra yi xoolal mun nañ la defal ralenti. tegal nga mais Turquie lan lan wax yow. non Turquie nee na ñoom ñoo nekkoon si machine yi. essayant yi dégg ñoom seen bopp ñoom ñoo nekkoon si machine yi te maanaam ñoom ñoo programmé affaire bi génn dem seen yoon. yaa dégg bàyyi affaire bi muy daw programmation waaye Seck lan moo tax booy kan mooy Wally Seck si réew ak lan la liggéeyal Sénégal. lan la def si mim réew gaa lu dul pervertir jeunesse bi booy man la sum ji yàq ndaw yi léegi da ngay gis ay booy tout tànk ay booy yu ndaw ñaa nekk ay deux plus. mais damay ragal nga damay ragal nga xaru. Hmm. am na ñoo xam ne bi ñu wér di xaru. Baye Fall Baye Fall bu bon bi bi nga ko xamee Sénégal. yow waali nga bëgg a bañ ci réew mi maanaam yow waali nga bëgg man dëgg rek laay wax yàlla rek a tax. Hmm. i ma boo ko déggee ni muy parce que waali ñëpp ko bëgg ci dëkk réew mi ñu toll man dëgg laa bëgg. yaa ngi dëgg te dëgg mooy mujj. waaw waaw mais mais mais mais c'est bon man balaa avant ma jox saa dama lay may rek ah. daam laaj bi may laaj ma tey ji peut-être que programmation bi la ci régie bi la yooyu yëpp mën nañ ko nangu mun naam mais li ëppoon ci cër tamit dan ko joxoon la famille Ndour. Mhm. Ah, loolu moom kenn mënu kaa dindi te ku xool rivalité entre Wally ak ñoom. te Wally ak bës bi muy def jamono il faut se poser des questions est-ce que bu taxawoon way mm. dina leen arranger. loolu aussi tamit am na ñuy poser question boobu aussi tamit est-ce que ñoom boo leen ci bëggee seppi ba mu set est-ce que tamit c'est vrai. Wally Seck maanaam bëgg nax sénégalais yi ak état yi dégg moo tax maanaam erreur bi mu amee sax Youssou Ndour yóbbante na si moom man yàlla maa ngi si stade bi si coulisse yi man lépp laa fekkee dama teel a ñëw si stade bi ba affaire bi ni muy tasee ah bi Macky Sall di génn man si laa génn. ñu ne Youssou Ndour yóbbante na si moom ma rek man maa ngi fa woon xam man. ma nax xan la la Youssou Ndour yóbbante ci moom. Youssou Ndour dafa yóbbante si Wally Seck ñëpp ñoom sax xam nañu erreur am na parce que am na benn femme turque bu ñëw expliqué ko erreur bi yaa ngi dégg léegi moom Youssou Ndour dafa yóbbante si moom ne ko na ñëw ñu bokk seen bi ñu yéeg ñu wayandoor. no no Baye Fall bu doon li muy wax dëgg la bu dee mën na way ah. wala maanaam li li bëgg na ñëw bëggal askan wi day ñëw xoola wàccee ba boppam Youssou Ndour jox ko micro yow booy bi rek maanaam suñu arrogance rek ñëw di indi ay micro ban artiste nga ñëw yow ay star international ñëw fa yow ngay ñëw naan ay sama micro or beex sama micro jamaa bi booy bi booy wax leen ko dëgg te yàlla tax boo leen ko bëggee na wàccee boppam est-ce que ay dëgg te na bàyyi yëfu miikër bu nekkee ci suuf di def ay mafia def lu ko neex bëgg xaajale gem bi dajale ay booy artiste ne ñii laay woyandoor jox leen ku nekk xaalis est-ce mais booyee noonu man wax naa ak ñoom parce que ay artistes yu ma naw te yu ma respecté la su mel ni ay El Hadj Kaïda ay Terba Mbaye booy ay ndaanaan nañ xam nga voilà bu leen booy bi mës a mubboo ba ñuy dugg si ay tojaange wala si ay affaire de guerre wala noo ñun booy bi nañ faral wala dara nañ bàyyi seen affaire yooyu noonu yu ñu bëgg teg si showbiz bi ba pare bu ñu paree après ñëw victimiser wu naan non gars yi dag ma bañ wala yéenii Youssou Ndour ay soom yu bëri booy bi reprendre na ko way ko te waxu ko dara wala man la sum waay dajale gaan la sum ay njabootam ay xajam booy ñëpp jug booy di saagandoo Youssou Ndour di attaqué doomu aadama ni ñu def Youssou Ndour man yàgg nag moo ko def chaque jour ñu may menacé keroog woon en direct ñu ñëw di ma song waaw mayel mayel sa dafa bokkoon ci ñi war a way du dëgg yow nga bokkoon ci ñi war a seetaani non non yow seetaankat nga. non non man seetaan déglu waaw déglu waaw ma yow seetaan moo la fa yóbbu. non man seetaan yóbbuwuma fa. lu la fa yóbbu. man li ma fa yóbbu kenn sélectionné wu la ci war a way noonu maanaam acteur teewoo fa en tant que art yow da nga fa teew en tant kuy seetaan waaw seet ba xalifa ba may déglu nag quand yow tey wax lu am yow non da may déglu quand même man li wax lu am la parce que lu wér la euh, yow Wally dafa nekkoon comme koo xam ni dafa war a way yow nga ñëw comme kuy seetaan si. non non man artiste yaa wala sécurité Youssou Ndour non non man man waaw déglu ma rek. waaw ma loolu loolu loolu mooy. déglu ma loolu mooy li nga xamante ni mooy li njëkk. ñaareel bi li ngay wax ni yëpp loo dégg la ay nit di wax rek waaye yow nekkoo ni da li liñ wax ne Youssou Ndour wax na ko ay wax la rek yoo xam ne bi yoo dégg ci réseaux sociaux yi la. yoo dégg rek la mais mu amoo certitude que ni Youssou Ndour wax na ne ko nañ wayandoo loolu moom déggoo Youssou Ndour wax ko tey déggoo Wally Seck tamit wax wala déedéet lii ngay wax ni di ngay accuser Wally nii yëpp est-ce que da ngaa dégg Wally Seck fu mu yëkkatee ay kàddu ay nit ngay dégg ay nit rek ngay dégg ñuy wax léegi yow ci waxu nit ñooñu léegi yow ngay basé wu bëgg a nappaaje Wally lu tax loolu yow da nga am problème personnel ak Wally Seck wala lan lan mooy sa problème yaak Wally waaw xam nga ça d'abord man keroog man je suis artiste rappeur xam nga waaw mais mais mais ñoom gaaka dañoo ñëwoon comme war a way mais yow ñëwoon mais ma fa ñëwee waaw man maay sama label mm. sama label laa àndal yaa ngi dégg balaa ñuy ñëw foofu si stade bi. da ngeen a ñëw ak sa label pour seetaan. non mais ma ñëw balaa may ñëw. si stade bi man maa woon sama label rabato ah, ah. ah. si maanaam centre international Abdou Diouf. waaw ñu am fa ay star international. ak ay job yi job est-ce que bi nga fa jugee. bi nga fa hmm. jugee. Hmm. su ñëw si stade bi. man ma nekkee si stade bi yëpp. maa ngi maanaam dox maanaam si yitte art ak culture en général. Hmm. est-ce que dégg. parce que maa ngi doon job ak baxaaw doy na ma ay badge yoo xam ne ay artistes yu bëri yu nekkoon si biti maa ngi doon def le tout pour engager ay badge leen dugal. a mm. ce que ay dégg. kon yow kay yaaroo non maa ma ñëw maa ma ñëw maa ma ñëw. yow yaaroo mu def mooy la yéen nga sa bopp yow da nga fekk stade bi xam nga kii lan la def xam nga xalifa li mu def mooy sukaa ñu ne fii cinq personnes a fii toog yaa ngi dégg ba jox ñun ñi yépp bant léegi nag bu ma ñëwee jëlaat bantu Omar dem mm. dugal ci kële ñëw indi ci Babacar mu ñëwaat jëlaat eh, bant dem dugal ci keneen yow yow yow ñu organisé ñu organisé pour mu jaari yoon may ma yow ñu organisé pour mu jaari yoon yow yaa jaxase jaxase jaxase organisation bi nekk de dama ni la problème organisation moo amoon keroog ci inauguration bi yaa ngi dégg bi ñu ñëwee fekk fa problème boobu hmm. en tant que acteur culturel waaw ak tamit doomu réew mi nekk ay sénégalais ay ñu wàccee suñu bopp di leen jàppale. ci organisation bi yow yaa jaxase organisation bi déglu ma rek déglu ma hmm. rek ça. man aw ma euh, problème wax kenn. turquie problème bi ñu am yëpp moom la nee naa la man dama fekkee maa ngi woon si coulisse yi est-ce ay dégg. waaw booy Wally Seck son am na benn instant mi ngi daw ñëpp ñu nekkoon si instant mun nañ seede. waaw son mi ngi doon daw mooy son mu naan jam ñaajo laa lay xaar. waaw mais boobu ñëwul pressé. ñu ngi woon si coulisse di jaabante. xaw ma da doon xar fa xuufa xaw ma lu mu doon def di jaay affaire. tous ñebe boo di saa yow boobu foo nekkoon am ñu complexe si kanamu benn doomu. aadama dëgg la question complexe xam nga xalifa xam la mooy sa problème. dëgg la booy bàyyi leen Wally Seck booy. waaw xalifa dëgg la Wally Seck il est faux booy. non déglu ma xalifa hypocrite dëgguwul booy. waaw xalifa déglu waaw mais da ngay déglu. xalifa xalifa da ngay déglu. bu bëggee bës. coow nga dem liggéey. waaye yoo xam mi naan la centre du peuple da lay fen. xalifa wala soxla wala am na bés ba pare. seexe yow waaye si stade bi lan la fi waay lan la a nekk ma wax la ma wax la lan mooy sa problème. lu dul dooleel yow xalifa xalifa man dama jàpp ni yow da ngay dal ci kaw waali pour nekk parce que yow jàpp naa ni ci bésu waali nga joué beneen mbir de contraire pour nit ñi nga fes ci côté boobu parce que yow bu dee sa côté musique fesoo sa musique. loolu nga jàpp. ci wàllu fese waaw maa ma ñëw loolu nga jàpp yow da nga jàpp ni loolu la. waaw mooy man yéen a ma invité ma ñëw toog. yow ci tooñ nga fese tooñ rek a ma si waxu booy boobu noonu man préwoon naa sax si ay waxam. non yow da nga ne dañ nga doon menace de mort. kan moo la menace tey si tey menace yooyu noonu man yow yaa ngi naan waali mooy bës mais yow yaay samay matuwaay yëpp yow yaay ut bës ah, mais yow yaa ngi naan waali mooy bës mais yow yaay ut bës voilà tey si tey ça man si boo boo waxoon maanaam si politique wala leneen ak leneen si réew bi daf may gën a neex mais pas ay détails yooyu ñooñu ay xaj yu deerañ man ñooñu lijjantiwuma leen sax mais day fekk ni coow bu jugee ma fekkee affaire bi nu mu demee. waaw mel dëgg bi wax. waaw mel mel suka mel suka dëgg mooy mujj incha allah yàlla na àtte léegi. incha allah. primo première fois da ngay li ko wax ni Bamba Fall yow ci Bamba Fall ci politique bi. Ah. da nga ni woon Bamba Fall dinaa def menace de mort amul. deuxièmement bàyyi la bàyyi. musuma wax ni Bamba Fall da ay waayam gis nga ay waayam. waxal ma waxal ma ay waayam nga ni woon dañ laa kit dañ dañ lay agressé kenn agressé wu la yaa ak bëggoon agressé. mais loolu dëgg la mais loolu flagrant dëgg la booy di ma attaqué ma filmé leen. fii amul te tey c'est li ñu nekk ay doom maintenant moo tax ma def noonu. mais mën naa ñëw deuxièmement mais loolu bu jeexee jeex naa. deuxièmement xalifa waxu Bamba Fall yàlla atte naa. xalifa benn ma doon saaga yëpp ñëwaat nañ ne ma saawaay baa ñu waxoon nga ñu ko ay bu ñu yëgoon. mais xalifa ñun dëgg nañuy wax te yàlla tax. mais xalifa Sénégal ndax moo compliqué te metti maanaam réew mi moo bëri. xalifa doon may ma déglu xalifa benn deuxièmement xalifa euh, Waly Seck mi ngi bay waaram ci dëkk bi di def waaram ci dëkk bi kon lu tax nga koy wax naan deux pistes boo ko wax booy ma fii moo xa moo moo doon def deux piscines tax nga wax loolu. ma fii waaw man ki ngay wax man xama la laa gis man. waaw man Wally Seck laa gis. yaa wane ko sol yére jigéen sol saagu jigéen man loolu laa gis man ak di pervertir jeunesse bi man la su ma keroog mars daaw réew mi muy tàq fii nii. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. daw làqu la def man la su ma ji kenn gisu ko jeunesse bi nekk fii di dee di reyante di xeex pour maanaam sàmm démocratie. est-ce que ay dégg seen intérêt bopp nañ fi nekkee booy. mais yow mais mais mais mais mais oui ma daam daam loo xam ne non non daa du ma koy bëgg a laaj rek. da yow daa nga sànq da am baat boo wax bi ngay wax da nga wax ba yow sa bopp mooy da nga ne organisation bi fee moo baaxuloon te loolu ñu ko wax bari na. Mm-hmm. kon mbir mi bu jeexee yow au lieu ngay téere sur Wally Wally deful dara dañ ko jox oh. carton invitation mu ànd ak ay nitam ñoom war a way peut-être bu wayul mën na am déception mi ngi mel ne tey ji ñu woon na ma kaay liggéey si. ma yegg si leneen xew déception laay am bu may génn parc bi may ñëw ñëw ma fi parc dama war a ñëw rek génnaat dem sa dama ñëw pour rendre service fi may liggéey demaat sama yoon mais moom bu ñu ko invité ba mu ñëw gisul loolu c'est normal moom en tant que kilifa waale bu naa ko tuddee kilifa naam xale la du wax mais ay nitam yu mu àndaloon am déception am déception di kaas waaw ah, d'accord voilà am déception di di est-ce que mënoo noon pointer organisation bu bon bi foofu au lieu ngay tirer sur waale waaw mais neex ko moom parce que mu tax nee naa la ay artistes yu bëri joué wuñu kenn déggu mais loolu du yoon mais loolu yoon ay nit ba ñëw waaye am nañ ay am nañ ñoo xam ne mun nañ leen waxal. mais boo gisee man la sum xaj yooyu noonu ñu yónni leen ñuy woowu di woowu. waaw mais mais xalifa xalifa seega leen dafa am waaw wuyu ma si boppam la nekk waaw wuyu ma ma seega leen dafa am xam nga nit ku ne. am na lu mu pose ci mbir mi tey bu fekkonte ni bi tey dañoo waxoon foofu eh, ne ana ñi bëgg diw yaa ngi dégg pour mu jouer wala mu bañ a jouer bu ñu fa defoon élection ñi wax ne Wally jouer mooy ëpp mooy dëgg la wala dëgg te Wally Seck tamit lu ko waay mën a waxal xam ni def na ay mbir ci li am jam ñaajo parce que def na annonce am def na musique spéciale pour stade bi yaa ngi dégg donc yooyu yëpp nekk na loo xamante ni bés la woon boo xamante ni bii waru foo mel ni nag comme yow mii nga xamante ni bii eh, da ngaa seetaan si. même ñeneen ñi ngay lim ñoo ne ay artistes internationales mais nag tamit aussi tamit waaye tamit artiste national la boo xam ni. tamit am na lu muy peser ci jeunesse bi loolu moom. il faut nga ah, xam parce que yaa ngi nii ne. day pervertir jeunes yi c'est parce que kon am na influence boo xamante ni bii ndaw ñu jox nañ ko bopp yow reconnaître nga loolu ci say biir yi wax kon nag waroon nañoo fexe ba turki même ñu mën a yor organisation bi. ñu leeral leen parce que ñooñu xamuñu mais ay sénégalais ñoo leen war a xamal gars yi nag dañ ne ña nga xamante ni ñoo sosoon ci mbir yi mooy ñoo ñu nga xamante ni bi ñooy famille Ndour looloo tax mbir mi laal leen directement est-ce la Youssou Ndour sentir hmm. ba tax mu yëg ni kat lii problème la ba tax mu daal di reconnaître défaite boobu bëgg a reconnaître bëgg a rectifier le tir daal di woo waali pour. waaye moom xam nga tey si tey ma xamal la benn affaire. bu sénégalais yi sax xëy na xamul woon. waaw ñaga nur bi ñuy tuumaa li ko saaga si affaire bi. Hmm. xëy na sax mu neex booy bi parce que booy bi xëy na bu ko neexul woon dina génn wax ak njabootam yooyu ñu bàyyi ñuy wax ak saaga yi ak salteel yi est-ce que dégg. Hmm. ñaga nur ngi woon studio di enregistrer Wally Seck ba ay 5 heures du matin. waaw est dégg. Hmm. Sénégal fii ñëpp xamante nañ ko kenn mosu ko dégg si ay wax wala si ay coow est-ce que wax dëgg ndax te yàlla tax man ñooñu saawaay lijjantiwuma leen bu ma leen waree wax dëgg dama leen di wax dëgg voilà bàyyil waxu yabal man làmmiñu askan wi dëgg laay wax ci yàlla tax te booy Sénégal booy booy fii gis nañ fi xaw ma Cheikhul Chérifu Al xaw ma <laughs> xale bu ndaw boo xam dañ ñëw naxee ñu naxee ñu ma naxee maanaam sénégalais yëpp ñooñu booy naan xaw ma booy bi heure nii gaamal la sumwaay mi ngi xaw ma Mauritanie xaw ma fan mooy loolu xam nga Sénégal nañu bàyyi di jël maanaam nit ku bon di ko màggal. <laughs> Ah, di di di eh, soow naan maanaam Cheikh Salif lu muy def pour yow nga non xam nga gars yi xamante nañ xam nga <laughs> nekk Mauritanie sax nee nañ saa waay xam nga télé tamit jib mais gars yi xamante nañ xam nga. <laughs> dese ma la wax nañu bàyyi Sénégal di màggal nit yu bon yi di tuuteel nit yu dëggu yi. waaw man ma donne raison chaque fois. ba ànd ak boobu ma porté woon plainte booy. bu ma jéem a jaay doole xalifa ba Seck dafa bëgg Seck da nga indi benn information Seck Salifou Sénégalais yëpp la intéressé da xamal dara Seck Salifou fi nga ne ci la mu nekkee Mourtadi. non xam nga tey see mooy lu ma la wax xam nga. <laughs> waaw xalifa xam nga xama xama xama maanaam ngeen andi xale bu ndaw naxee ñu ko maanaam ni askan yëpp kii wàllu yu la ah booy booy stade bi fees dell booy booy Sénégal da ko farcé la quoi ba be ba be boobaa ngi foofu di laal ay joint am gaan wala sumu waa ji wala xam nga ñuy naan tàqali ko naax sagom ñuy naan gaan mi nga sagom ba léegi mais tey see mooy li ma Sénégal ngir yàlla war a sullaa nañu bàyyi di màggal nit yu bon yi yaa ngi dégg ba pare di tuutal di xeeb nit yu dëggu yi ñun garaawul de amul solo saa yi ñu génnee wax dëgg gars yi génn booy xoola comme ay xaj di ñu wow di saaga xam lu ma la da la doon agressé te dañuy dawal sometime yàlla àtte da lépp lu may wax si taan bi yàlla war a sullaa seetlu li may wax si taan xool xoolal ñi ma amal problème ñëpp te dëgg laa wax. Euh, ñu may jéem a jaay doole yàlla day àtte chaque fois parce que mu tax dëgg du musa a changé dëgg mooy dëgg te mooy ah. mujj. Ah, est-ce que ay dëgg voilà. waaw macha allah euh, moom benn côté damay ànd ak moom mooy Youssou Ndour maanaam. baayu waali la. te coon Ballago Seck euh, mi nga xam ne mu nga ca àjjana ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax moom toog na mu ne Youssou Ndour maanaam euh, ku lu woykat fii ci réew mi moo la mën barki démb rek maa ngi koy suivre parce que man coon sekk dama ko bëgg dama bëgg Waly Seck sama doom bëgg Waly sekk kon ku bëgg Waly sekk la mais benn côté li mu wax damay ànd ak moom ci benn côté ndax euh, ki nga xamante ne ni jiitu na la ci néeg bu lëndëm mën na la woon yoon bi ngay jaar tey jii fans yi nga xamante ne ñoom ñooy ay fans Wally nga leen di gis ci réseaux sociaux yi partout dans le monde ñuy critiquer Youssou Ndour pour man euh, Wally Seck waroon na génn moment bi nga xamante ne ci la affaire yi di am mu mhm. leeralal ay fansam keneen nii la demee lu mu doon doon kilifa mu toog leeral ay fansam famille Ndour tamit ñoom ñu génn Youssou Ndour wala Ndiaga Ndour wax ak askan bi li nga xamante ne nii waa waa kon seetaanuma loolu waa maanaam mu génn leeral ñoom ñaar ñu waroon a génn leeral mais waruñu woon a bàyyi fan si yeeg nit ñi ñu nekk ci full di defante ci réseaux sociaux yi di waxante naka sudul noonu waaw loolu du yoon Youssou Ndour def na fi lu nekk Wally Ballago Seck nag tey moom la fi yàlla teg dañ ko koy nangul kenn yàlla teg na ko fi waaye moom tamit nag gën a defaraat toogaayam gën a xoolaat entourage am <laughs> waaw merci beaucoup ok euh, euh, lan la tamit maanaam si maanaam lu may wax sénégalais yi mm-hmm. mooy maanaam affaire de mi kër affaire de maanaam samba alaar boo jógee si kaw di jéem a jaay ay mën a siiñ xama mm-hmm. waaw ak baax di sóob te boo nekkee ci suuf def say mafia booy man la sumu wax fii ku mu neex wax man booy ana liberté d'expression ba pare may artiste rappeur làmmiñu askan wi du ay foo lu ma bëgg wax dama ngay wax waaw bu la naqadee nga dem porter plainte est-ce que ay dégg mais ñuy yónni ay samba booy ay wëy yu tekkiwul dara ñu ñëw yor seen i barre de fer ay arme ne dañuy taal sama moto ne rek may attaqué ne rek may rey quoi ah parce que boobu maa ngi doon defee émission Nord Foire ko ñu Waly Seck moom si boppam est-ce te ki jiite loolu gars yi yëpp xàmmee nañ ko bu baax waa waa waa média bi si boppam ñoo ko ñëkk xàmmee ne diwla la que yàgg na ñëw si média boobu di waxal booy bi amuñuy ay wuyu nañ tekkiwuñu dara alerte nax international man mën naa zamor mi miis naa ko miin naa ko dama siy jot bu dee politiciens yi laa la wax nii laa lijjantiwul asamaa moom mii nga ah. xamante nii ah man la sumuwaay bu ko téyee ba téyee fii gars yi duñ ay ngaaxa lépp ay mafia la ah. mbaa man la sum ay affaire de ah, suuf yooyu yëpp xam nañ ñu demee ay oto yi gaana ak ay drapeau deux plus ya bon ah. askanu lëmm ñoo tax ñoom ñun ñu xam drapeau deux plus ay yëre jigéena ah. tey say mooy lu ma la wax man su ma neexee communiquer damay communiquer voilà mais tey say sàmba booy bu yàlla nattu tele laa toog wuyu bu yàlla nattu nga ñëw naa ndax may faagaaga la néew ma dooma rey de mais balaa nga may rey moom sama bakkan du xottu gerte quoi te bu ma la jekkoo ñaat dërëm du ma la ko may barki Baay Ñas ñun ay doom mi naa nañ bu ñu neexoon nekk ay malfaiteur te dañuy sonal sax takk der yi te defuñu ko yoonu dëgg ak jub nañ tànn jaajëf xalifa voilà tous ñebe muy buut buut yi maa ngi ñëw insha allah way jigéenu àdduna yëpp particulièrement les femmes sénégalaises waaw boo bëggee nga génnee sa bopp mais insha allah ay saaku ñebe laay maye saaku ñebe moom bu ma ko tegee su ma la bëggul may sax yow di nga daw si ñëw juróo ñebe yi <laughs> muy bot bot yi boog waa man la sumwaa ji. waaw bëggee. mi ngi noonu xalifa eh bu ma waxati tous de. <laughs> Euh, jërëjëf mu nekkoon ki nga xam ne rek euh, moo di Omar bu ñu xataab gay ci lu ay di ñàmbat mu invité ki nga xam ne rek moom moo di Khalifa rappeur euh, amul tous tasar amul ñebe donc dañuy dem fi nga xam ne rek moom moo di régie daal di jëli li nga xam ne rek moom bu di suñu tampon indi show ñu fas yéene ànd ak Fatou Dieng Sall. jërëjëf euh, <laughs> jërëjëf euh, Jacques Oumouane Préra euh, bala moo bala ñoo sori nag mu ngi nii toog jaaw ñëw sama.